kon gars yi jox na système bi ngi nii yi ngay gis ak kaabul la kaabul gi moom laa def nii muus mi ma sonal ñetti fan ngi nii bokk de moom njëkk ñëw fii la jaar gis dugg lekk samay xeti sama benn xëti moo xam daa doon yor ay cuuj bi ci des ay nan la yoroon muus mi ñëw lekk ko léegi nag comme yàlla dogal na moom doomu aadama yàlla xel la may muus mi yàlla dogal na nii la ko këpptalee buum gi laa jël euh, takk takk euh, ci bunt bi toog di ko xaar bi yàlla doogalee mu ñëw nag moo wutoon xeti moom jotoon lekk moo nekk na le seen mus maa ngi ci caaxaan la nekk yaa ko nii ci caaxaan mus maa ngi nii seen ko ci caaxaan képp képp la nekk xaw naa maa rey sama xëti yëpp lekk na ko ak sama cuuj yi léegi ma defal ko <clears throat> pexam pexam mag daal di ubbi affaire bi raccantal ko wut buum bu dëgër takk xam nga fenêtre baa ngi nii su ma tëddee <clears throat> jàpp ne murit bi xoot na <laughs> fekk <laughs> moom ci pexam na fee moom <clears throat> fi door maa naa depp suba moo xool <laughs> ba dama koy def <laughs> liberté provisoire wala dama koy kii wala dama koy <laughs> def contrôle judiciaire comme ni ñu def sama waaj Ousmane Sonko xam naa fa laay jëm ak moom de ci caaxaan képp képp ak i tàppale nekk ay bu jóon ak tuuti duma ko defee maa ngi nële ci biir xëti maa ngi ne ci biir léegi laa ko këppatee gis nga mu ne ci biir moo commencé lekk démb nag da kaa def ma defal ko gratuite xam nga démb bu ko lekkee eh, bu ko lekkee dem. dara fekk ko ci bu subaa bu xëyee du ñëw du ist day ñëw dugg mu ne ko nag yàqu nga <clears throat> fi ne nii saa ngi nii ci biir nii ci suuf sama cuuja fi ne ah, xam ne sëñ bi sàccu di daan dooleem di wut lu mu am yare ganaaram nga bàyyi bu guddi sëñ bi fi ne nii deux heures moins waaye man cinq heures laa jëmoon ak moom rekkum duma ci sayaan waaw ah, kon ngeen gisee ko noonu rek <laughs> Eh, yàlla doy faral koy tooñ tooñ da amul garanti sëñ bi ñu fanaan yàlla yàlla may fanaan jàmm rek su ak jàmm ma xool nu may def ci mbiram